السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوك جولي مبوك طالبي مبوك نيو باي خيل كي سين تيليفزيون تي في في مدينه تي بي ريم اك بتيم ريم نيغي لين دي نيو دي لين ام ديك بو باخ كي تام دي نين تام تي في نين كو خامي تاي لا غاو نيا فيك فانت ويرو اتون 2017 دي بيس بيغا خامي ني تي دار انسبكتور خي دار خدوس دي جيبال ليغي بي شيخ سيرين مختار مباكي خليف جنرال كل مريد نين كو خامي نك مبولم سيلول يي نك تي بي ريم اك fii ci kanamu Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke ngir fas yéene def seen siyaar bu am solo bi nga xam ne nii moom la ñuy duppee siyaar annuel ci loolu tax na nag incha allahu taala seen télévision xasaay TV ni mu ko baaxu ànd ak yéen danañu ànd ak yéen ci ay reportage incha allah ci am ne danañ ko séq ak mbokki taalibe yi nga xam ne ni ñoom ñoo jiite liggéey bi incha allah ñu ñëw ak ñun si nga xam ne ni siyaar ko muy mi moom mi ngi door mbooleem daar ne ci biir réew meeg bitim réew kuréel yi ñëw barkelu waaye nag eh, incha allahu taala ci kanam tuuti danañu ànd ak kuréel muy kuréel gu mag nga xam ne ni sëñ moo ko jiite ngir ñoom itam ñoom ñoo fas yéene àggale li li nga xam ne ni moom moo des ci njàng bi incha allahu taala lépp loo xam ne ni en tout cas bàyyi koon fii ci kër Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké dara du leen ci ump yéen ñi nga xam ne yéen bàyyi xel seen télévision Xasaay TV incha allahu taala taxaw ak euh, Serigne Mbacke Seck moom mooy jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah daara Xudus bi nekk fii ci Touba sëñ bi ginnaaw bu ma la nuyoo siyaar la ndokkeel la ci bis bu am solo bi nga xam ne ni tey ji moom la amal euh, ñu bëggoon a xam rek euh, Hizbut Tarqiyyah daara Xudus bi nekk fii ci Touba naka ngeen doon waaje siyaar bi waaw bis ma su xal ñu ziar bu baax a baax ba daal Touba nag ziar bi bañ ko jàppee ba léegi membre yëpp maanaam boole suñu doole ak suñu xel ak suñu xalaat di fexe maanaam lépp loo xam ne mooy tax ziar bi jag rek boobu léegi ci loolu la ñuy dox suñu borom dafa nañ tawfeex nag ba gaa yëpp daje nañ ba lépp lu ci war ci wàllu muy lépp loo xam ne ci dafa jëm ci wàllu bagage moo xam ne li ñuy jëfandikoo ci ziar bi lépp jàpp nañ la day ci wàllu addee nga xam ne da seen tamit suñu borom dafa nañ tawfeex ba maanaam ba ñu ko bëggee woon amee nañ lu kawe suñu jokk euh, wax ni maanaam li nga xam ne moom lañ waajale woon bis bi euh, waaj nañ ko ci wàccaay yi nga xam ne morom moo gën a sell waaj ko ni nga xam ne maanaam noonu lañ ko waajoon daaw ñu yokk paste bi gën koo waajaat ci ren gën a yokkaat laxasaay xam ne maanaam euh, maanaam li nga xam ne moom lañ fi sàkk si woon daaw ci ñaan gi nga xam ne maanaam moom lañ fi sëñ Sidi Moxtaar ñaanoon ñu gis suñu kawe suñu njort moo tax ñu ren maanaam ñu jàjjuwaat laxasaayuwaat ñëw ngir jàkkaarloog sëñ Sidi Moxtaar tàllalaat ko suñuy loxo yeesloowaat yeesalaat suñu njëbbal doole santaat ci li nga xam ne maanaam moom la ñu moom la ñu moom la ñu ñaaraloon daaw ñu gis ko ren ñu doole di ko di ko santaat ginnaaw bi nu santee yàlla sant yi yonent bi sant Serigne Touba ñu dellu siwaat di fas yéene euh, tàllalaat suñu loxo dégg ko sëñ Sidi Mokhtar euh, jéem a laxasaayuwaat ngir ànd ak moom ci li nga xam ne maanaam moom mooy toolu Serigne Touba bi. mu mel ni ziyaara dafa bokk ci eh, ponk yi nga xam ne ñoo gën a foor ci yoonu murit ndaxte bokk na ci eh, li nga xamante ne bii nag mooy wane ni nit ki ab murit la mu am ab sëriñ waaye nag muy dem ca moom di ko nemmiku di ko liggéeyal waaye di ko jox addiya te sëriñ bi bu la dul gis du gis sa addiya du xam yoway kan tey la muy liggéey la mën nga cee bañ jot mu mel ni Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos at mu jot balaa ñu um danañ dajale mbooleem li nga xam ne moom la ñu liggéey ci at mi eh, ci eh, lépp daal di ñëw gisante ak sëñ Sidi Muxtaar wax ko li nga xam ne moom lañ jot a def ci at mi lépp daal di yëkkati sunu at yi jox ko mu doon lu ama am solo ndax bokk na ci li nga xamante ne bi ne Serigne Touba digle na ko te Serigne Touba eh, wax na ni gaa yu baax yi ko ànd ak ñoom ñett yi boo ci dëggoo ci benn rek mën ngaa taxe te loolu buñ ca demee danañ fekk حديه ملي وخني طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمه او بحب او هديات مون تاخد نيال نات مريد بيغا خامي دا فا دغال نيال سيرنتي تي لان تي خدمه دي لين ليغيال ولا مو سوبلنت يالا تخ ولا مو لين جو حديه حديه موم دا فا دون لو خامتاني بينا لو ام صولو لا لو خامتاني بينا داي جاري نيت كي بو باخا باخا باخا te bokk na tamit ci nga xam ne day laabal xol di laabal alal waaye daa bokk ci ponk yoonu murid kon kuy murid rek war na jox a su waaye ziar bi de wax dëgg yàlla ni ñu ko waxee rek waa Daara Thiadiaye moom ba ñu fa jógee daaw bi jàll ci lañ commencé waajal ren bi am nañ ci lu mucc ayib itam ñu ngi ciy sant mbooleem taalibe bi boo xam ne nii nekk nga fa mbooleem mbokk daara boo ne nekk nga fa itam sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp wax dëgg fa ne yàlla am nañ ci lu taw feex lool loo xam ne ëpp na kawe suñu suñu jot lool ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ni suba ba léegi ñu ngi ànd ak yéen fii ci euh, kër Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké gi nekk ci Touba euh, mboolem daar Hizbut Tarqiyyah daar Khoudoss nag moo xam ci biir réew mi la ak ci bitim réew ñëpp tey teew nañu fii ci kanamu sëriñ bi ngir fas yéene ko jébbal liggéey bu am solo bi nga xam ne nii moom lañ ko doon defal ci noonu tax na ñu ngi toog ak euh, sëriñ Dame Ndiouk moom mooy jëwriñu daara Dakar sëñ bi ginnaaw bu solo bi nga xam ne tey daara ji mu ngi koy amal en tant que jëwriñu nga ñu mën a soñ am solo bi nga xam ne daara ji ñu ngi koy def bismillah barke borom tuba seigne bi ñu ngi sant bu baax baax di la sant bu baax di sant mbolam ñi nga andal lool ci liggey bi di rafet lu baax taxaway bi ngeen taxaw ah da ziar bi nak liñ ci mëna wax moy li ci sant seigne bu baax a baax baax baax ci ndam li nga xamante defal nañu ko ci ndax ba nga xamante wote nañ ko lancé ko wax ni bëgg nañu bu ñëwé ci wéru chamban bi ci fan yu mujj ni ziar ji seigne bi am yene jo xamante wax nañ fësal nañ ko ci bëgg ko ci def mbolam membre yëpp gis nañ ni bañ ko waxé ba légui kenn ku ci ne yaa ngi doon fexe di góor góorgóorlu ba yitte ji daara ji am direction bi am ci daara ji ngir matale sas wi kenn ku ne fexe ba liñ la ci sas nga matale ko muy góor ñi di jigéen ñi di mag ñi di ndaw ñi mboolem ñu ne ci biir daara ji ci dakaar ba ci ñi nga xam ne sax ñoo ne ci bitim réew ak mboolem cellules yi nekk ci daara ji rek te aju ci daara ji def nañ ko muy suñu objectif ba yalla sunu borom sutural ñu ba lañ ci bëggoon yele ko ci sunu borom defal nako ci waaw sëñ Daam ku wax euh, mbol wax walu mobilisation gis nañu ni Daara Dakar am mobilisation bu am solo bo xam tay def nako. ko ba Dakar ñëw tay ci Touba fi ci siar bu am solo bi nga xam daar ji mu ngi koy def euh, naka nga ñu naka ngeen doon def tay ba def mobilisation bu am solo bi ci walu assemblée centrale ngeen lu wone lepp ngir wajal siar bi waaw deug la siar bi nak gënaaw lom doon lo xam ni ci calendrier daara ji at mu la ñu koy amal ci wéru champagne bi motax tax bañ ko lancer ñu commencer di def weer wu ne ñu amal ci ñaari assemblée générale bu weer wi tàmbalee ak bu weer wi mat ñu def ci assemblée générale woo mbooloo mépp góor ñi ak jigéen ñi ak ñu ne ci kuréel yi ak ñu nekkul ci kuréel yi ñëpp ñu daje waxtaane objectif bi di xam fu ñu ci toll di xool yan jéego lañ ci war a dolliwaat ba liggéey bi ñu mun ko matale. loolu lépp nag mu doon loo xam ne nii ci supervision service administratif ñoo ko doon coordonné di lancer nit ñi ay message di leen woo téléphone di leen wax lépp lu jëm rek ci ñu mobiliser wu xam ne dafa doon loo xam ne nii dafa am solo. ndax euh, ziyaare sëñ Touba ku ne xam ne li ci nekk ci ay yool ak ay yiw te mu doon lii tam doon loo xam daara ji ba mu jugee ba léegi saa bu ñu yegsee fii rek def nañ ko te yàgg cee gis ay ndam tàmbale woon ko ci sëñ Saliou ba fi ñu toll nii. kon nag moo tax bañ ko lancé rek kenn ku ci ne yitteem ak pas-pasam ak léppam moo doon ñu fexe ba lañ ci bëgg ñu am ko kon ñi ñuy wax muy ñu yor administratif yi ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax ci taxaw bi nga xam ne taxawu nañ ko ci ci convocation yi. ci message yi ci mboolum jumtukaay yoo xam ne nii rek ngir jot nit ñi ba wax ak ñoom def nañ ko ci ba lépp sotti waaw suñ daam laaj mujj bi rek xam naa moom mooy euh, am nañ bokk taalibe yoo xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci diaspora bi te bokk ci euh, daara ji am taxawaay bu am solo boo xam ne naka jëkk daan nañ ko ci def te ji yan euh, soññ nga leen di soññ ak yan kàddu nga leen di beral ñoom ah ñooñu kañ dañuy wax ni ñoom ñoo ñuy soññ ñoom seen jëf saa su ne dañ ci gis ñun suñu soññee ndax euh, wax dëgg yàlla bi ñuy waxee objectif ziar bi ne leen lii mooy sas wi bëri na ci ñoo xam ne dañoo wax ne xanaa yéen da ngeen a bëgg a jëf-jëf yi bañ na cee boole ndax li ngeen ñuy sas tuuti kon xalaatuñoo yem ci li nga xam ne moom ngeen ñu féetale kon ñoom wax dëgg yàlla ñun suñu wàllu bopp sax ba ñu gisee réaction boobu ñu def ñun moo tax ñun ñakkat wax dëgg yàlla ñun war nañoo gën a góorgóorlu ndax ñoom ñu nekk ca ca fa sori sax bu ñuy ziara du ñëw bu ñuy joxe addiya ji duñ ko fekke te ñu mën cee def jëf joo xamante ne ni ñun fekkewuñ ci kon war nañoo góorgóorluwaat ñun suñu wàllu bopp ba ba gën a euh, yokk suñu jëf kon ñoom daal li ñu mën mooy di leen jaajëfal di roy ci seen jëf jooju xam ne wax dëgg yàlla daara ji pas-pas bu ñu taxawee rek ñoom taxawañ bu toll foofu te ñu ngi leen di sant bu baax a baax nag muy mboolem daara yëpp ak fu ñu fi mën ne muy waa Argentine di waa Brésil di waa Côte d'Ivoire di waa Guinée équatoriale waa Mali waa Gabon waa Italie waa Espagne waa France ba ca Canada fu fi membre nekk rek ba nga yëgee ziar bi ba léegi yaa ngi dajale sa addiya di ko yónnee di soññee fu gaa yi toll lan moo ci des ngir rek Sëriñ Tuubaa defal ñu ci ndam. Euh, jërëjëf Serigne Dame Diouk kon mbokk yi ba léegi ñu wëyal liggéey bi ñu ngi toog ak euh, Serigne Moussa Mbaw moom mooy euh, responsable euh, finance centrale ca diwaanu Ndakaaru bokk aussi ci nga xam ni ñoo doon saytu wàllu koppar yi ci mboolem Daara Hizbut-Tarqiyyah Daara Khoudoss sëñ bi ginnaaw bu ma la nuyoo siyaar la ndokkee la tey ci bis bu am solo bi euh, ñu bëggoon rek ay leeral ci fan ngeen toll tey jii ci wàllum addiya yi ak it wa wàccaayu siyaar yi boobaak léegi naka ngeen doon coordonné taalibe yi. kon asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu ngi siyaar taalibe yëpp xanaa di sant sëñ Tuubaa rek. ziar bi moom wax dëgg yàlla euh, tawféex na ku ne xam na ni biñ ko jàppee ak léegi yàggul waaye nag mën naa ni pëste feeñ na ci ndax daanaka le 7 bi passé lañ confirmé date bi le 20 mai waaye diggante bi wax dëgg yàlla mbokki bi yëpp def nañ ci pësteef ko ki nekk rek la nga xam ne am nga ko indi nga ko def ko ci liggéey bi muy loo xam si wax dëgg yàlla am na solo lool xanaa kay ñu gën a takkaat saay gën a songal liggéey bi rek te xam ni liggéey bi moom day dox du taxaw

yàlla julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam noo ngi ziyaare Cheikh Sidi Maxtaar di ko ñaanal sun borom saxal ko fi mu yàgg fi lool di jaaxi Seydina Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam ziyaar bi at mu jot danan boole lanu am ak lanu amut yëpp ngir jëmmal bés bi def ko ci bés bi jox ko sëriñ bi te yàlla rekk tax ngir dooleel euh, jëmmal sëñ bi dooleel ko te yàlla rekk tax ñuy kontaan trop ci ziaru Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos bi nga xam ne ñu ngi koy defal di nga koy def di ko ziare sëñ Sidi Moxtaar at mu jot saa su ne ñu koy def suñu borom di ñu defal taw feex ñu ngi ciy kontaan bu baax di ci wax ne euh, comme soxna Hizbut Tarqiyyah daar Xudoos tamit ñu ngi leen ci sant bu baax a baax taxaw nañ bu baax ci waañ bi ak togg yeeg yëpp xéewale ñu ñëw fas yéene ziare sëñ Sidi Moxtaar. ziar bi moom ziaru cant la rek comme ziaru cant la moom. dañuy wan sëñ bi fi mu ne nii moom lum ñu sas rek sasoon nañ sa tegoo ko ñu ngi sant nag waaye Hizbut-Tarqiyyah Daara Khoudoss ndax lu ñu def rek jiitu nañ ci topp ñu ñu topp seen ginnaaw ko ñu leen di ñaanal gudd fan gu ànd ak wér boo xam sëñ Sidi Matar moo si jiitu lum ñu digal ñu def lum ñu tere ñu bàyyi ñu ngi ñaan nag suñu jëwriñ ji yàlla ko fi yàlla yàggal. nga xam ne moo ñu boole ci boppam di sant cellules yi nga xam ne ñëpp dajee nañ tey fii ci ziar bi ñëw di ziar sëñ Sidi Mokhtar mu doon loo xamante ne nii mbégte la ci ñun ñu di ci sant bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla lépp loo xam ne na ko suñu borom nangu mu doon loo xamante ne waxtaan mu bi xabdillaahi jamia wala tafaraxu moom rek la leen nit ñi ñaanal. liggéey bu am solo bi nga xam ne suba bu am solo bi nga xam ne ngi koy def tey ci kanamu Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général kullu murid ci noonu tax na ñu ngi taxaw ak euh, Serigne Abdoulaye euh, Diaw moom mi ngi bokk ci jëwriñu cuisine bi ci euh, daara ji te ku wax cuisine wax ay berle yu am solo yoo xam ne saa yu nekk rawatina moo xam ci siyaar yeeg màggal yeeg yi daara ji mi ngi ko baaxu ànd ak mbokki taalib yi nga xam ni ñooy ànd ak moom liggéey bi sëñ a beeg yooyu de moom siyaar da koo war te dañoo ñëwoon ngir si di siyaar sëñ bi ndax ah, daara ji moom ku ne xam ne dañoo baaxoo si saabaan fan yi mujj saabaan ñu siyaare sëñ ku fi nekkal sëñ Tuubaa daara ji moom sosoo ba léegi mën nañu quatre ba léegi at bu jot dañ koy def bi si bu jotee dañ ñëw bi ci lañ ci lañ nekk ni siyaar bi nag ku ne xam na ne amuri fu ñu daje xéwal li mën see ñàkk moo tax ci lañ dafa ay ndax comme daara dañoo baaxoo weer bu jot ñu yóbbul ndab sëñ bi waaye ziar bi bu saxbaan nag mooy mooy ziar bi gën a mag dañuy togg ay berne yu yaatu ànd ak ma daar jëpp ñëw jox ndongo yi ak gan fi fekk gis nañ ne mu nekk daar ji dana ñëw fii ci kanamu Cheikh Sidi Mokhtar amal fi ab siyaar euh, ci wàllu togg beeg yooyu ndax mën nañ ci euh, jàpp ak yokkute par rapport ak année yi jàll. moom ku ne xam ne moom yoon moom moom saa su ne rek day yokkute da am moom ndax ku ne xam ne ba ñuy tàmbali ba ñuy tàmbalee ziar jamono Sëñ Saal dañ daan indi addiya ndaw ñu ne ay napp waaye bañ tàmbalee indi napp sëñ bi ne ah loolu bokk na ci màndarga ak ndox ak dox bokk na ci bandar koy dox ci lañ ko ne saa su ne nag dañuy yóbbu ndab. diiru at mi weer wu ne dañu toog ay ndab ñëpp daje fi ñu ñu jëbal ko sëñ bi daar yëpp koy barkeelu nag muy daar bitim réew ak daar bitim réew mi kon ñi nga xam ne siyaar bi ñu ngi ñaan suñu borom yokk si daar ji yokk si ndamal murid yëpp si barke Cheikhul Khadim taxaw ak euh, Serigne Cheikhouna Sylla moom bokk ci jëwriñu daar Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos bi nekk fii ci Touba en même temps mu nekk responsable culturel euh, Serigne Cheikhouna ginnaaw bu ñu leen nuyoo siyaar la euh, di la ndokkeel bu baax a baax ci bis bu am solo bi ñu nekk tey ñu bëggoon rek nga dikk ak ñun ci njariñ li nga xam ne nii tey di siyaar bi ñuy def am na ko ak na rawatina addiya ban njariñ lay amal taalib bi nga xam ni tey mi ngi koy joxub sëriñam ok di rafet lu baax baax liggéey bi xam naa ngir tontu ci laaj boobu dañ ci sawar loolu ndax ku ne xam na ne siyaar moom daraja ak wàccuwaay bi xam ne am na ko ci yoonu murit ah, da loo xam ne ku nekk dégg na ko muy mbir yu bëree bëri yoo xam ne ay njariñ yoo xam ne yu lëw la nit ku nekk di ko bàyyi doon tàmbali rek dañu xam ne siyaar moom ci yoonu murit daa doon kenn yi nga xam ne ñoo fondé yoon yi di principe fondamentaux yi nga xam ne ñoom ñooy fondé ndax euh, ku ne xam ne Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mi nga xam ne moom mooy fond yoon wi daa bokkoon ci yi nga xam ne moom la nekkoon ak mag ñi fi nekkaloon te tàmbalee ko ci jëm boppam ji doon ziar bu baax a baax moom digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam doonte am na ay bind yoo xam ne bind na ne wax na yitteem yëpp moo jógoon doon na kon jug ziar ko waaye buñ ko indee ci yoonu murid di ziar dañuy day baax ñu xam ne bokk na ci ay njariñam bokk na njariñam mooy dana yóbbu murid bi ci ay waj ay maqama yu kawé kawé kawé ndax yi nga xamné mom mo moo làmb ziar buñ ko tasoon di di détaillé baat bi da ca bokku addiya muy yang koy laaj ci biir joxe addiya ndax joxe addiya nak ndax melokanu murit bi biko seigne touba di tënk ci texé gi nga xamné ne bi bu bu làmboo dana texé ba mujj moy addiya waye tamit man nañ né mo mujj ca mbind waye mo moo itam ca jëf-jëf ndax day lu for lol bokk ci li nga xam ne bu nekk da koy da ci ay yëngoom muy addiya di ca bokk yëngu murit addiyati xusdi bilaa gi Sëriñ Tuubaa di wax te jëmee ko ci soxna Mariama loolu mooy wëlbatikuwaat indiwaat ci murid bu nekk ñu man cee jël xissa bu ndaw boo xam ne diggante siyaar boo xam ne Sëriñ Mor Moustapha yëkkati woon na addiya indi ko Sëriñ Tuubaa boole ñaar muy doon ko siyaar si ànd ak di ko jox addiya ndax ñoom ñaar ñooy ànd la ko Sëriñ Tuubaa wax doon sëkk ndax am na yu baree bari yu mu ko wax ne ko siyaar da koy def ci am murid addiya da koy def ci am murid loolaa tey ji di lijjanti mbir yu mel nii di siyaar di leeral dañu xam ne kon addiya mooy li nga xam ne wàccuwaay wu mat a mat a xam ne am na ko rek tënk ko suñ tuwaa daa waxoon ne di ko suñ mën sa siyaaree addiya dana fekk fu dara nekkul mu def fa dara dana fekk fu lu néew nekk mu baril ko waaye dana fekk fu lu baree bari nekk mu bargel ko kon wàccuwaay wu am solo la am ci yoon wi te tuuba li abdin muridin sadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaat la suñ tuwaa wax kon daal lii mooy li xam ne incha allahu taala façon nañ ko yéenee waxte xanaa yokkute rek ne melokaan wi ñu koy defee melokaan wii ñu koy defee daa baax lool lool lool lool lool dëppoo itam ak melokaan wi xam ne moom la Sëñ Tuubaa bëggoon mooy nii ñu koy defee muy bàyyi ko ci ay béréb yi fasanti ko ne xam na ne mbooloo mi fi daje fu nekk la waay bàyyi ko yëkkati lam am ci ñàqam dajale ko xool la gën ca la nga xam ne moom la am boole ko mu doon ab lim bu takku ñu ñëw nag mobilisé wu ànd doon mbooloo fas yéene sukk ci kii nga xam ne moom moo fi nekk Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di Cheikh Sidi Moussa ñu di ko ñaanal lool mu yàgg fi te wér kooku yi lañ ñëw andil ko addee ju mel noonu kon nag lii buñ ko doon buñ ko doon wax di ko tënk lañ naan mooy li tax mbooloo mi jóg ñu ngi rafet lu baax jëf ji di ñaan suñ borom nangul ñu ko itam di ñaan suñ borom dugalal ñu ko ca wax ji suñ tuwaa daan wax naan إن الذين إلى صار صار قد خصدوا زيارة فارق داين أو زار يالنا سنتوا دوغل زيارة بيت زيارة يوي بوك ييغا خامني يي نوني باي خيل كي نيغي اك آه، سيرين مختار كيام بوك سي جوري ني سن بي غيناو نيو سيار لا ندوك لا تاي سي بيس بو ام سولو بيغا خامني دارا جي نينكوي عمل سي كانامو مختار مي سيار انويل بي آه، ني بيغون ريك غا نيو اك باتلي سي آه، دارا جي تيوسانم ناكا جيك مو باخو دي سيار خليف بي با اتي ات مو ياغ لان غن سي مانا بسم الله الرحمن الرحيم barke seigne Touba khadim rasoul suñu akar. kon seigne Fallou silla yak ñi nga andal ñoo leen di sante bu baax ci liggey bu rafet bi ngeen di def nga xamne day jotal liggey bi ñuy def diko yaatal ba ñu bare bare ñi ko waronu yek man tabi. yek ñi ci wara a man ci ginaa ñu lo lolu ak laaj yi ngeen xamne mom ngeen andi liñ ci mana mëna wax rek moy daara ji naka jek ni yoonu murit di doxé rek daa tënku ci biir doxalin woowu mag ñi nga xam ne dañ daan sàkku ngërëmal sëñ bi yoon yan daan jaar di ci sàkku ngërëm di sëñ bi leen ko defal yoon woowu rek bi ñëwee ci lañ tege li cëpp ci njàngale mi nag ñu ngi ko ree ci waxtaan yi nga xam ne sëñ bi daan na ko wax ak yoon wi nga xam ne daan nañu ca teg ba tax na ba li nga xam ne muy ziar ku ne xam ne daa bokk ci liggéey bi nga xam ne murid nañ ko liggéeyal sëñ bi biir ziar boobu nag bari na yu muy làmbo yoo xam ne gis sab sëriñ boo xam ne mooy ki nga gën a sopp ci àdduna di ko teg bët la ca juddoo ci njariñ it ku ne xam na li mu doon rawatina nag ni nga xam ne noonu la sëñ bi mel ci biir ñin war a siyaare noonu mu leen kowee kon yool bi nga xam ne moom lañ am ci gis giñ koy gis noonu lay kowee leneen li ci teguwaat muy addiya ji nga xam ne dafa bokk ba tey ci fondement yoonu murit addiya dañ ko ciy dajale bu baax a baax di ko yót sëñ bi addiya jooju tamit nag li ci sëñ bi dële ku ne xam na nim toll ak li nga xam ne moom la mën a defar ci ab murit kon yeneen liggéeyal sëñ biit da cee ànd nga xam ne mbooleem melokaanu murid saadix dañ koy lëm ci ziar bi nga xam ne bii moom lañ koy def nga xam ne duñ ci boole benn duñ ci bàyyi benn fànn ginnaaw loolu nag tàmm nañ ko ba saa yuñ ko yëgalee képp koo xam ne ci daara ji nga nekk da nga ciy am cawarte goo xam ne moom nga ciy àndal ñu ciy soññante suñu biir di ci fàttalikoonte mag ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy baay ci yoon wii ni nga xamante ne ñooñu saaba yi ñoo nekkoon seen baay ci lislaam soññante boobu nag dina tax ba kenn ku ne dinga def loo xam ne lii dina la wóor ne lii mënuloo ko woon ndax yëg-yëg moo la ci yón yóbbu ak pas-pas ak yitte ba moo tax soñña bi moom du mën a ñàkk ak yaatal giñ koy yaatal ñëpp di ko yëg nga xam ne dañ ciy tolloo saa yu nekk toll ginnaaw loolu nag seet nañu sëñ bi ndimbal lum ñu ci defal ak gàttandoom ndax li nga xam ne moom la ñu nisar saa yu ne moom lañu bëgg a yot sëñ bi dina jàppandi te kenn du ci sonn kenn du ci yëg benn coono te dina jàppandee ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee ginnaaw loolu it mbooleem niñ koy defee ci daara ju ne day mel loo xam ne day def tache d'huile ci mbooleem daara yëpp ñoo bokk nuñ koy waajee ñoo bokk euh, niñ ciy waxtaanee ñoo bokk nuñ koy dajalee ñoo bokk it benn barab boo xam ne ci lañ koy centraliser daal di koy ñëw bokk ànd jébal ko sëñ bi. dinañ fexe it ba ñi nga xam ne ñoo fi nekk niñ bëggee sëñ bi ci boppam ñu ñëwee ci moom ñu koy leeralal ñu koy leerlu ba bu ñuy ñëw sëñ bi dañuy fexe ba ñëwee ni nga xam ne noonu la ko bëggee yar ak i ku ne xamee ne ko mbooloo mi loolu dañ koy gën di dëgëral di ci gën di yeddante di ci gën di waxante lu mbooloo mi bari bari dinañ fexe ba dinañ siyaare ci jàmm delluwaat ci jàmm te duñ fi ànd benn bruit boo xam ne bii dina doon loo xam ne du gënal sëriñ bi mbaa du gënal mbokk taale bi nga xam ne moom lañ fiy dajeel di leen sant bu baax di leen gërëm tey sant jëwrin yi nga xam ne ñoo ñu jiite nag ci liggéey bii seen taxawaay rafet na seen soñña matale na te lépp ñoo ci jiitu jërëjëf wasalaam